sant ko si mboolem xéwal yi ñu defal xéwal yooyu bokk na si ñoom jotaay bii di xel ak xol xel ak xol ndax ñaar yooyu ñooy doomu aadama doomu aadama xel la doomu aadama xol la doomu aadama xel la ndax xelam jumtukaay boo xam suñu borom moo ko jagleel doomu aadama sàkkul xelam bindul xelam yàlla moo ko jox xel ngir mu koy jariñoo ngir xàll yoon ngir jëm kanam doomu aadama doomu aadama mboolem jafe-jafe yi nekk ci kanam yëpp xelam saafara si fa la nekk damaa dem bu jëfandikoo xelam rek da gis saafara yu bëri day juddu xoolal li xelu doomu aadama togg yëpp tey ba yekk ko mel ni ay télévision mel ni ay téléphone ay otoraay ay gaal ay tali ay kër ay euh, ordinateur internet yooyu yëpp xelu doomu aadama moo ko togg yekk ko doomu aadama xelam dafa fort tubaab yi ñoom nga xamante ni ñoo jiite àdduna bi ñoom ëpp ñu doole de ëpp ñu am am ëpp ñu man man ñoom lan la ñuy ëpp gën gën ñoo fonk xel fonk xel boobu moo tax tey ñoom ñu féete ñu kanam ñun bés bu ñu tàmbalee dëgg dëgg fonk suñu xel bàyyi ay xar fa fuufa ay déeba déeb ay kalma ñàngaan ay xërëm ay xonjom wekk suñu xel ak suñu borom ñun lu ne mën nañ ko am fu ne mën nañ fa dem doomu aadama day moytu am xel mu lënd ak xol bu lëndëm ndax sa xol bu lëndëmee da ngay soxor siis iñaan Euh, ba yow sa dund dafay naqari sa dund sa àdduna yëpp day yàqu li yàq àdduna bi mooy yow xol bu lëndam doomu adama day moytu am xel mu lënd ak xol bu lëndam am na lu ñu bugg seetaan si wàllum xel balaa ñu dikkaas yotaay bi di xel ak xol delloo njukkal waa Régie tey Roxoy Daba Mbodj moom moo nekk ci euh, réalisation bi sunu ñëwkat muy Papsi euh, Papsi njit création fii ci HLM Nimzaat moom it delloo ko njukkal sunu jotaay bi nag tey xel ak xool ñu ngi si ànd ak lay Bamba Seck Laye Bamba Seck moom dafay gëstu si wàllum marketing en sama Aliou Diop Aliou Diop tey moo yor kàddu association ànd sauvé gox bi Aliou di nuyu la ziar. ñoo ngi lay fay Tunkara. Euh, Laye Bamba yow di la nuyu la ziar. di la nuyu la ziar. Laye li nga yëngu lu mu doon. marketing laa yëngatu. marketing mooy lan. marketing bu fekkente ne bii kuy jaay la marketing mooy pexe yi muy utiliser ngir mën a jaay la muy jaay kam koy jaay kam koy jaay am na am ko na mu ko bëggee ca moom miy jaay tamit moom bénéfice bu fekkente ne bii koo xamante ne bii jaayut la définition boobu du mën a valable kuy def politique par exemple xam nga jaayut dara amul clientèle te wutit aussi rentabilité mën nañ définir kon pour ñoom marketing. pexe boo xamante ni bii ab barabu liggéeykaay am na ko wala organisation am na ko ngir nit ñam seqal liggéeyam nit ñoo gis ci seen bopp moom it mu gis ci boppam ci gàttan tey li nga bëgg leeral lan la. Euh, li ma bëgg a leeral mooy dama yaroo ci Bawol am loo xamante ni dafa ma metti mu am diggante les années quatre-vingt-dix ba début 2005 boo xoolee jamono yooyu ñu nekkoon Europe moodu moodu yu bëree bëri bëri ñu ngi may dégg defoon nañu effort d'investissement fii ci réew mi. mais malheureusement tey jii boo delloo ci ñoom laaj leen fan la seen investissement yooyu toll muy ñoo xam ne doon nañ dimbale seen i rak doon nañ dimbale seen i jarbaat doon nañ dimbale seen i nijaay wala ñeneen ñuñ bokkal tey jii ñu bëree bëree bari biti yi ñu ubbi woon kenkaay yi ubbi woon mo transport yi taxawaloon tey jii boo demee lépp naax saay na li ko waral mu naax saay nag mooy seen gestion mu baaxut loolu nag moo tax ma ne man bi yorin bi moo baaxut am naa war naa bay sama waar man ak ñi nga xam ne ñi ngi jàngale gestion maanaam kuy def statistique war nañ mën a ñu jàngal tey bawol bawol bi lan mooy statistique kuy def gestion de stock war nañ mën a jàngal ki yore boutique lan mooy gestion de stock te am na feebar yu bëri yoo fi dégg dangay dégg ñu ne ngénte sàngam am na nangam mi nit am nañ ci ay tawat li koy sabab mën a nekk une mauvaise gestion des stocks imagine toi kuy jaay meew te xamul lan mooy gestion de stocks ñu livre ko benn stocku meew day ñëw rek à chaque fois bu stock bu bees ñëwee day ñëw teg ba ca ginnaaw nekk fa mën na fa nekk ay année année année ba benn jour demande bi yokk mu jël ba nga xam ne am na fi 2 ans wala trois ans boole ko ca ñu laax ci ñëpp feebar. kon war nañ mën a jàng gestion des stocks war nañ mën a jàng marketing war nañ mën a jàng comptabilité waaye nag le problème mooy ñoom ñi nga xamante ne bii samay mbokk bool bool lañ est-ce que ñoom mën nañ jàngee marque li ma wax nii léegi mën nañ ko jàng comme que ne na ma ko jàngee je crois que déedéet. li ma bëgg nag mooy képp koo xamante ne bii am nga xel yàlla may la xam-xam may la tamit xol boo xamante ne bii mën ngaa bokk ak nit ñi sa xam-xam ak sa xel ma lay naan rek ci sa jot boo ko amee nga may ma benn vidéo bu trente secondes bu trente minute bu une heure boo xamante ne di nga jël benn aspect gestion nga def ko ci olof ci joolaa ci bambara ci séeréer ñu wasaare ko ci suñu bokk yi nga xamante ni ngi secteur informel bi ndax ñu mën a gérer li wérte mooy. suñ mbokk yi Europe ñu nekk Europe ñoom seen jaan wàcc na parce que jot nañoo dimbali ay nit malheureusement ñañ dimbale woon ñoo mënut a gérer léegi nag ñooñu pour dimbali leen ci gérer dañoo ci mën a jàpp ñi xamante ne yaakaar ne doo yaakaar ne tere nañ leen ñu teg leen ci yoon ba bu ëllëgee xéewal wàccaat kuñ dimbale nga mën a yokk lañ la doon dimbale ba pare tamit dimbale ñeneen su ko defee yaakaar naa ne réew mi dina jëm kanam. Euh, mais Laye Bamba Seck li dafa am solo de léeg gis nga Laye Bamba di nga gis nit mu am yéene ne dafay commerce waaye moom mënta yor commerce. commerce ba daanu. nga gis koo xam ni dafa ñëw ubbi boutique wala ubbi supérette wala ubbi supermarché euh, waaye moom mënul koo yor ndax xamul nan la ñuy yoree parce que yorin euh, man-man la xam-xam la te boo ko mënul mais laay baam man mii euh, li nga woote ni man dinaa la si wuyu. bëgg naa ab vidéo boo xam ne. Mhm. si wàllu woowu 30 secondes rek nga wax ñëpp war nañ si bay waar ngir ñu dimbalante aywa Aliou Diop. yow euh, association ànd sauvé bi fu mu ne. Euh, association ànd sauvé bi mu ngi nekk ci commune de Réfane. fuy Réfane. Réfane euh, benn commune la bu nekk ci région de Diourbel département Bambey arrondissement mbay commune Réfane. maanaam daal yow it bawol bawol nga. bawol bawol la waaw. association bi depuis kañ la. depuis sept mois la judd. juróom-ñaari weer. juróom-ñaari weer fi mu toll ñoo ci trois cent cinquante deux personnes. ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar. léegi <coughs> euh, Réfane fu mu ne Réfane ñaata nit ñoo fa yeewoo. Réfane la population s'élève à trente neuf mille trois cent trente neuf euh, habitants. Hmm. moo nekk fanweer junne juróom-ñeent ak euh, ñetti téeméer ak fanweer juróom-ñeent. Hmm. léegi Réfane superficie bi lan. bon je ne maîtrise superficie. léegi Réfane population bi nit ñi foofu. Hmm. góor ñi jigéen ñan ñoo ëpp. Euh, comme la majeure partie de la population Refane jigéen ñi ñoo ëpp chaque jour góor ñi. jigéen ñi ban pourcentage la. je ne connais pas le pourcentage. ndaw ñi nag ban pourcentage la. je ne connais pas le pourcentage des jeunes aussi. je te te te foofu am na ay handicapés. bien sûr. xam nga ñaata lañ. non non non. Hmm. léegi li nga bëgg leeral tey lu mu doon. Euh, mais euh, Aliou Diop balaa nga tàmbali tamit am na yoo xam ne nit da ko war a xam daal si goxam. statistique statistique. mooy mooy léegi li kii di wax ni gis nga takk lim. mbooleemu liggéey fa lay tàmbale takk lim ñaata ndaw ñaata jigéen ñaata góor ñaata élève ñaata étudiant loolu day tax ba soo buggee liggéeyal ñooñu liggéey bi day gën a yomb aywa li nga bugg leeral tey lan la. Euh, li ma bugg a leeral euh, Tunkara comme ni nga ko xamee association And Sauvé bi dafa am objectif munu mu d'abord association And Sauvé bi front la boo xamante ni day xeex pour euh, lutter contre la privatisation du forage de Réfane loolu mooy suñu objectif. en fait euh, association And Sauvé Gox bi juddu ci benn contexte boo xamante ni état du Sénégal dafa jël euh, décision pour privatiser forage yi nga xamante ni ñoo nekk ci kaw gi dénk ko dénk ko OFOR OFOR jël euh, liggéey boobu dénk ko société canadienne bu ñuy wax Aquatec directeur général Aquatec Sénégal nekk Pape Boy Diop ci réforme boobu waa Réfane d'accord uñ ci dem bu benn instant ñu am problème ak ak gouvernement bi am problème ak sous-préfet parce que d' accord ñu pour ñu ñëw jël seen forage mooy le forage qui situe à à centre euh, may fàtt ne euh, li tax ñuy bañ réforme boobu euh, mën nañ ko tënk ci point yu bëree bëri bi ci njëkk mooy ñun ASUFOR moo moo moo doon doxal les forage rural les forages ruraux bu jëkk réforme bi war a ñëw jëlee fi ASUFOR teg fi OFOR ASUFOR bi mu ngi doon jaay le mètre cube le met cube d'eau à 150 francs Ofor nee moom bu ñëwee du ko jaay 150 francs 250 francs la koy jaayee donc une augmentation de 100 francs par mètre cube d'eau je pense que c'est un peu. benn mètre cube d'eau benn mètre cube ndox ñaata litre la. 1000 1000. yaa benn mètre cube 1000 la. waaw. allo mil la wala 10 000. 1000 j'ai dit. wóor na. léegi euh, léegi yéen lan ngeen proposé. li ñu proposé mooy ñu bàyyi le forage de Réfane te bu ñu bëggee dimbali. Euh, boo bëggee dimbali nit damaa jàpp ne parce que réforme bi dañu ne dimbal dimbalaate dimbalul euh, kaw gi moo ko tax a jóg ñu bay ñu avec notre forage te bu ñu bëggee dimbali ñun am nañu ay villages yoo xamante ni amuñu ndox pourquoi pas ñu xalaat ñu beneen forage boo xamante ni dañu koy raccorder avec le forage de Réfane Centre bu ko defee village yooyu am ndox bu ñu ko mënul ñu jox ñu autorisation parce que le forage de Réfane Centre bi nga xamante ni moo indi coow li tey Euh, am na xaalis boo xamante ni liggéey na ko boo xam ne mën nañ ci tabax forage def nañu benn demande envoyé nañu ko à Diourbel s'il nous donne l'autorisation nous allons. Euh, euh, loolu dafa am solo lool mais comme ni nga ko waxee rek benn mètre cube bu ndox moom mooy junni junni litre ndox mais tey ñu mel ni yéen xam nga affaire ndox moom dafa sensible parce que ndox mooy dund. te boo laalee dund nit ñi rek soo moytul nit ñi dinañ jóg te yooyu kon yu ñu war a lijjanti la nu gën a gaaw aywa laay bamba message bi mu nga bëgg ñëpp dégg ko bi ngay jeexalee. lan message bi ma bëgg ñëpp dégg ko mooy ni ma fas yéene dimbale maa ngi ñaan képp kuy évoluer dans le domaine de la gestion nga jàppale ñu ngir suñ mbokk yi nekk ci réew gën a mën a xam ni ñuy gérer seen activité yi. bi ci des nag mooy yéen ñi nga xamante yéen lañuy jàppale yéen laa koy jagleel kuñ ci jàppale nga nga dimbale ñu li war a sool yi li li nga am bu ko yàq. voilà loolu daal mooy ah, mooy képp koo xam ne yow da am na loo xam si wàllum yorinu këru liggéeyukaay euh, na nga jàppale ñoom laay Bamba Seck ñii si ñu def ay vidéo yoo xam ne ñu amul fay ba képp ku soxla xam xam gën a màcc si euh, yorinu këru liggéeyukaay parce que këru liggéeyukaay ko amaana moo gën a yomb yor ko. yor ko moom dafay soxla xam-xam dafay soxla man-man dafay soxla pas-pas euh, loolu benn beneen bi nag mooy ñi yor këru liggéeykaay ñi ubbi dara di si di si baywaar ñoom nañ ko bañ a yàq euh, euh, madame euh, Viviane Wade dafa doon ñaax jigéen ñu baax naan leen yéen jàmbaar ngeen gis ngeen la gis ngeen di teel a yeew di takk seen sër di dem di di di jaay taabal lu ne ngeen si dugg waaye ngal la nag na ngeen fexe ba li ngeen di dajale di ko am foofu bu leen ko jël rek sànni ko si benn xew toogaat parce loolu moom dafa li ngay gagné da ko war a investir waaye waroo ko détruire te investissement nag maanaam def dara loo xam dafay jur dara ëllëg loolu moom mooy njariñ waaye destruction de richesse maanaam jël ko rek sànni ko noonu mu naaw loolu moom da lay lor aywa euh, Aliou Diop lan ngay jeexale euh, message bi ma bëgg a lancé mooy euh, damay appeler la à la à plus de retenue que dañu toog bu mercredi bi passé plus de retenue mooy nañ dal ñu gën a dal waaw gën a toog waxtaan xam ne Réfane ñoo ko bokk lancé waat appel suñu autorités yi parce que dañu toog Réfane bu mercredi bi passé Euh, gendarmerie Bambey def fa benn embargo. Euh, embargo waay. mooy lan bi ñu ñëwee bi ñu ñëwee dal di ñëw Réfane euh, dugg fa ak ay ay ay camion gendarme arrêté fa plus de deux cent personnes de manière abusive et illégale deux cent personnes yooyu bokk na ci ay ñoo xamante ni ay handicapé lañu. am na ci ñoo xamante ni ay mineurs lañ am na ci ñoo xamante ni ay professeurs lañu garé au niveau du CEM de Réfane arrêté fa ay élèves professeurs yi gën di def intervention ñu arrêté fa ay inter ay ay ay ay je pense que cela peut causer une grève des enseignants. c'est ah. très grave. deuxièmement ñu dem institut Al Azhar def la même chose arrêté fa ay ndongo arrêté fa ay euh, ay ay oustaz mu nekk benn danger boo xamante nii mënoon naa xew bu fekkente ne population Réfane amuñu woon retenu amuñu genn dal gi kon may lancé euh, le ministre de l'intérieur mu mu mu wax ci loolu xam ne force de l'ordre yooyu bu ñu dellu si waatee Réfane bu fa problème amee euh, nañu jël euh, responsabilité ñu xam ne ci seen côté la nekk. message bu leer naa ñu dañuy am xaarandi bu ñuy def balaa ñu dugal suñu yeneen ñaari gante tey ci xel ak xol. doxee Daba moom moo nekk tey ci euh, réalisation suñu ñëwkat Pape Sy njiit création fii ci HLM Nimzaat di ko delloo njukkal tey suñu ñaareel jotaay xel ak xol ñu ngi si ànd ak Waly Mbodj Waly Mbodj moom. si casso yi la doon liggéeyee ba à traité waaye nag xam-xam dafa màcc si wàllum kaso nan lañ koy yoree. ànd samit ak Abdoulaye Ndiaye Abdoulaye moom ñu gën ko xam si Tan Bombe euh, moom ñu xam ko si écran yi ak si wàllu milieu art bi. sëñ waal yi la nuyu la ziar. waaw euh, Tunkara ñu ngi lay fay di la jaajëfal. aywa Tan ziar. waaw delloo ziar bu baax Tunkara ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. aywa euh, sëñ Waly. Mhm. tey da ñëw si xel ak xol xam naa yow bu ñuy wax rek. Euh, sa dikk fii si wàllum kaso yi ngay wax. waaw lan nga si bugg leeral tey. li ma ci bugg leeral bëri na. parce que ñaata at nga nga liggéey si kaso yi. bon liggéey naa 32 ans de service. fanweeri at ak ñaar. Mm. Euh, ñaata kaso nga def. def naa 18 prisons ak travers le Sénégal. fukki kaso ak juróom-ñett. Mm. waaye fii fanweer ak juróom-ñaar ñoo am. waaw am na yoo xam defoo leen daal. non mënoo def yëpp. mënoo def yëpp. aywa euh, kaso yi nga liggéey ban nga si gën a yàgg. fan laa ci gën a bon est entre Diourbel. Diourbel mhm. laa gën a yàgg. kaso Diourbel nga gën a def naa fa au moins quatre ans cinq ans. fukki euh, juróomi at. léegi euh, tey li bëgg leeral lii lan la. bon man nag lii dama ci dëkk c' première fois. parce que man booy xool en deux mille un commencé di dem ci média yi di wax ci kaso yi. 2001 jaar naa ëttub Sud ak Latif Coulibaly. léegi yow tey li nga bëgg leeral lan la. waaw li ma bëgg a leeral mooy dysfonctionnement bi am ci kaso yi. kaso yi ni muy doxee. waaw ni muy doxee jaarul yoon. mais loolu yàgg na. yàgg na dafa dafa perdurer booy man man suma carrière yëpp ci loolu laa ko def. mais kaso yi mës ta jaar yoon Sénégal. non mës ta jaar yoon te du te du jaar yoon. léegi. Euh, parce que politique carcérale bi ñuy indi. Mhm. gouvernement bu ñëw boo ko indee day échoué parce que régime carcéral bi fi am baaxul mooy emprisonnement en comme cellulaire de jour comme de nuit loolu dafa am lu muy favoriser. lan lay favoriser. promiscuité agressivité homosexualité. Hmm. promiscuité mooy nit ñi jege lool. Ah, agressivité mooy nit ñi maanaam. Ah, euh, ànd ak xadar. voilà ba pare homosexualité mooy ngóor jigéen. voilà ngóor jigéen a fa. ah bien sûr. yéen daa ngeen ko gis yéen jamono ji ngeen nekkee foofu si kaso yi. non pas nga gis ko directement mais des fois nga gis ku ko réclamer. ne dañ koy. waaw waaw effectivement. day am day am. dañ koy sàkku. day am des fois sax nga gis ñu joxe seen bopp noonu ils le font. <laughs> pour lan. Ah, parce que band yi dañ leen di noot day am. <coughs> bon léegi yow euh, tey li nga bëgg loolu pour yow saafarawu sunu kaso yi lan la. li ko mën a saafara mooy de un. prison yi man li may wax toujours c'est archaïque. archaïque mooy daa weesu. daa dafa weesu dafa weesu. si euh, di Kaba bi mu ñëwee daf ñu am lu mu ñu promettre mais damay construire dans chaque capitale régionale une prison d'une capacité de 1500 places. waaw d'accord waxu politique boobu nag ci la ñuy dëkk. donc dara du faju bon mais ministre bu bees bi am na kaso yoo xam ne fi ñu nekk baaxul dañ ko war a déloger. comme ban yooyu yëpp am na comme dama njaareem en pleine ville ci boori marché bi. waaw loolu dëgg la. nga dem Bambey kaso fi mu nekk aussi en face de l'hôpital hmm. Kaffrine nag. Kaffrine ma la amul benn kasu Sénégal bu baax yi ma def man Vélingara Bakel Tamba. mais kaso bu baax mënu fee am parce que kaso yëpp tubaab yi leen tabaxoon. waaw mais justement moo tax benn benn kaso. moo tax dangoo jël initiative tabax benn kaso mais loolu pour lan. ah parce que dañu doon ragal ne ku ku tabax kaso. dañu non loolu wax bu yàqu la. ndax la loolu wax bu yàqu la c'est-à-dire nulle part. ah Sénégalais yi xam nga ñu nag dañoo bëri ay ay ñu gëm. loolu nag tant que ñu ngi koy gëm duñ dem. <laughs> bon mais ministre ouest bi nag nee na kaso kaso jam kii bi bi ñuy tabax fii euh, Sébikotane boobu dina dina yegg. ça ça ne nit ñi du da leen di jàpp rek di leen tëj loolu ça ne résout pas le problème mais il faut créer des pôles de développement agricole risicole maraîcher en milieu carcéral ñu mun a am occupation. mais loolu commencé mais commencé woon nañ ko fi colonel Massar. non mais mais loolu dayul c'était dafa tuuti. Tounkara non dama ni euh, euh, colonel. Euh, waaw mon colonel yàlla na ko yàlla yërëm. waaw bët Sénégal waaw bët ah, la créé woon. bët bët yàlla ko yàlla yërëm mais. maanaam tàmmali la woon boo xam ni. waaw tey waroon nañ yegg beneen niveau. lu tax affaire bi demul. justement mën nañ la vallée du fleuve là lu muy jëri Helcom on peut on peut de la culture d'ar arachidière ñaata ñaata nit lañ teg si kaso Sénégal yi. bon ça day varier entre mille. non 9000. ak 10 000 9000 ak 10 000. waaw keroog ministre bi wàcc ba 8000 mu demee euh, assemblée nee na 10 700. voilà de de voilà taux bi entre yooyu des mu wàcc ba 8000. des fois mu wàcc mu dem ba mais nee na waa lu tolloo fukki junniy nit. ñu ngi leen jël ne leen ràpp si kaso yi fii. voilà justement te euh, ñun sunu kaso yi ni muy doxee mooy dañuy jël rek tëj la ne la ràpp. doo génn doo dem fenn doo liggéey amul dara. mais bu yàggee da ngay dof oisiveté boobu tu ne mais dañ leen di sacrifier. fii de bu ñu la tëjee kaso moom da ngay yow dootoon nit yow yow bokkatoo. mais et puis gën a con encore. Hmm. taux de récidive bi. parce que amul benn programme de réinsertion sociale amul. ah de moom sunu kaso yi moom dëgg-dëgg. Euh, amul Tane Bombe. yow euh, xam nañ ne bu baax si wàllum théâtre yow tey tey lu la fi indi. waaw li ma fi indi mooy dama am benn projet. boo xam ni dama ko defoon daaw muy benn festival bu mag. boo xam ni ñu ngi ko doon wax festival international de théâtre à Guédiawaye Festic Théâtre. 2019 euh, bi nag mooy dugg ci deuxième édition bi mu commencé na actuellement activités yi sax commencé na parce que le 24 25 novembre bi ñu génn dama amoon ay gan yi nga xamante ni ñu ngi jóge woon fële ca tugal ñëw doon defal formation sama organisateurs yi. formation bi mu ngi doon wax ci la bonne gouvernance marketing planification et la communication. Hmm. waaw muy ñoo xamante ni Canada lañ jógee muy ku góor ak ku jigéen. yow yow tan yow eh, affaire théâtre yi yow jàng nga théâtre hmm. non du jàng comme école. parce que. pour pour ñun Sénégal boo demul école des arts rek jàngoo théâtre mais am na ñu nekkoon école des arts ñoo xamante ni tey ñoom ñoo ñu formé ku ci mel ni Ibrahima Mbaye Soppe. ku ci ah, mel ni Matar Diouf waaw ku ci mel ni Kader jara ñoom ñoo ñu yor Blaise Senghor tàggat ñu. waaw Kader bari na ñu génnee école des arts ñoo xamante ni. kon yow ñoo la jàngal waaw mais ma nag école des arts vraiment. léegi yow tey euh, wàllum théâtre est-ce que mu lay dundal yow. waaw bu baax. mu ngi may dundal di dundal ñeneen ñu sës ci man. yow nan nga si amee xaalis. waaw ni ma ci amee xaalis mooy euh, spectacle yi may joué ak euh, wax dëgg fa yàlla euh, aussi tamit. demal na ma ba ubbil ma yeneen bunt yoo xamante ni tey maa ngi liggéey ci benn télévision ñu koy wax Nan TV mhm. man maay directeur de production bi aussi actuellement maa ngi ci ay production ut dem daf may utal ay place yoo xamante ni peut-être bu dul woon théâtre du ma ko am mhm. waaw mais nag théâtre yaa ngi koy delloo njukkal waaw maa ngi koy delloo parce que tey boo defee nii benn prestation yow ay ñaar lañ lay fay ah mais Tunkara loolu moom. <laughs> loolu ah, waxtaan la waxtaan la mais nag. mais nag salaire moom moom du loo xamante ni xam nga dañ koy wax. parce que ah, nit ah. man mun naa la sama salaire loolu du dara. non yow toog naa nga ni fii amoo fi salaire. waaw loolu moom dëgg waaw. kon xëy na peut-être am na feneen ak feneen foo am salaire foo xamante ni yaa muus <laughs> loolu mooy tey soo ma laajoon naa la ne aw ma ba pare ne nag waxal comme ay ñoom. <laughs> <laughs> non mais euh, tey euh, dafa am solo tamit cachet yi. mais ngeen ñeme di si wax parce que tan naa wax dara ñun Sénégal. dafa am benn xeetu bañ a wax dara boo xam ni loolu rek lañu gëm bu nekk si ñun. xaalis ñun dañ koo bëgg. gëm ko mais kenn ñeme koo wax. mais tey yow tan war nga ñëw ne man sama kache su ma defee kii lii la dina am xale bu lay seetaan. mais c'est cachet yi du du du du du du loo xamante ni day doon comme cachet yoo xam ne i exact yu tolloo la ko tey euh, am prestation yëpp yamuñu. waaw mais dañuy jox misaal rek. dañu tey bi ma defee prestation. fii est-ce que yow tey mën nga mën nga def prestation grand théâtre grand théâtre naa fa def prestation parce que joué naa fa deuxième mi ak ñoom gëw ñu ñoom kii euh, euh, Sirike ak Souké. mooy deuxième mi-temps Côte d'Ivoire waaw boobu deux sax moo nekkoon bi. dëgg la waaw boobu léegi mais tan yow lu tax ku mel ni par exemple. voilà mais loolu dafa am solo ñoom gëwu ñooñu. Mhm. xam nga ñuy ñëw tey ñoom. Mhm. jël grand théâtre mhm. def ko seen ndey woola yéen ñii ngeen ñëw. xaaral organiser ko woon de. non mais d'accord mais ñoom ñooy. kan moo organisé ñoo ko organisé ah. moo ko organisé woon ah. mooy ñoom Kader jara ñoom Tony Amdi Mignon ñoom ñoo ma formé ñu woo ma nag man maa fa gënoon nekk xale. Hmm. vraiment ñu woo ma boole ma ci pour ma def one man show. parce que en même temps man damay def one man show. daaw daaw non non daaw jéeg man maa représenté Sénégal Togo. waaw ci benn compagnie bu nekk foofu bu wax les gri les griots noirs de Togo. boobu en français nga en français laa joué woon. Euh, laa defoon parce que Massamba père Massamba Gueye. ma ko nuyuwaale de passage moom moo ma joxoon. Mhm. compte bi ma yóbbu foofu. ndeysaan waaw wax dëgg fa yàlla ma nekk ci moom liggéey ko wax dëgg fa yàlla dem. Massamba miroir moom aussi ma ciy gërëm aussi ministère de la culture parce que ñoom ñoo ma daggaloon billet tamit. xam nga kuy représenter Sénégal aussi. yoon la mais aussi tamit moo mais Ethan yow tey war nga mën a am sa jour boo xam ne yow tey grand théâtre yow yaa woote. pour def sa prestation lu tax loolu. ba léegi amagul xam nga loolu lan moo tax amagul. mooy Tunkara Sénégal la ñu nekk. Euh, man dama mës a dem grand théâtre man euh, Serigne ngañ ak Père bu xar ñu doon fa ut benn programme bu ñu waroon def ak Kaysi Bousso jour boobu la fa jameel waroon jouer Jamel Debbouze Jamel bi mu ñëwee war a def euh, Blanche. Mm-hmm. dañ ñoo dàq. ñun ñi fa ñëwoon en tant que ay comédien sénégalais. Hmm. ñëw war a gis Kayz Bousso toog di ko xaar dañ ne ñu génn leen parce que Jamel day def balance jeunes yi wër grand théâtre ba pare nga xool euh, Jamel. staff bi nekk ci ginnaawam nga xool sponsor yi mu am nga xamante ni vraiment Sénégal. doole yamul waaw doole yamul te xam nga tamit doo rey sa bopp. tey euh, am na loo xamante ni nguur gi moo ci war a mën a jàpp. mais kan moo leen dàqoon jour boobu. Euh, non GMI yeeg ak encadrement yi. ñoom mais ngeen leen yéen ay artistes ngeen comme Jamel nii. <laughs> Jamel seen naataangoo la. mais xam nga xam nga tey munoo fa nekk. yéen jameel xam na leen. munoo munoo fa ah peut-être. man xoo wax. mais est-ce que nuyoonte ngeen. saafonte ñun gisuñu ko sax dan nañu mu ngi waaj a ñëw pour def. dama gars yi ñàkkal leen xorom. waaw génn ñu. leen comme boo leen doon ay da nga am. ginaar yoo xam ni kes kes ngeen dem. voilà xam nga kon kon Sénégal am na problème ci wàllu théâtre gis nga gis nga euh, nga baal ma foofu rek. Mm-hmm. Euh, Sénégal euh, théâtre bi joxuñu ko cër bi. mu mais yéen yaa leen war a relever défi bi tan tey ku mel ni yow tey xam nga mm-hmm. xam nañ la. Mm-hmm. yow yaa ngi def ay prestations ñëpp gis mais tey yow boo ñëwoon nga organiser sa bésu bopp def sa performance invité say nit ñoom per bu xaar ñoom sëriñ ngañ ñoo ñëpp ngeen ñëw nag mu doon seen bésu bopp mais def nañ ko ba tàyyi te aussi ren grand grand théâtre def du mais du grand théâtre mooy lieu boo xam ne a fan moo foofu rek la war a théâtre fan mooy fi gën fës tey ci réew mi grand théâtre grand théâtre moo gën fës mais moom moo tuddee grand théâtre mais seen du théâtre moo ko moom ñeme naa fan ñeme nga woote grand théâtre yow man ma ñeme woote Bercy nga naan ma grand théâtre ngay woote si j'ai les moyens. ah non moyens yi kay yaa koy créé. <laughs> non moyens yaa koy fii Sénégal dama am lu ma la bëgg a wax tuuti Tunkara gis nga ñun danoo créer benn euh, fédération boo xamante ni aussi pour jooy li nga xamante ni moom moo ñu sonal fii ci Sénégal ci théâtre bi ñu ngi ko tuddee fippu théâtre point sn. yaa ngi dégg. Hmm. fipp bi nag boo ko déggee métaphore la parce que gars yi dañuy dégg fipp fipp ñu bari mere nañ ñu ci. tey ay kàngam yi nekk ci théâtre ñi nga xamante ni tey ñoom la wax ñoo jiite théâtre du Sénégal mere nañ ñu sax ci suñu fipp boobu parce que ay jeunes rek ñoo taxaw créé non bari na du mënu ma nekk fii di lim na bari na ñoo xamante ni ah, non du gaaruwaale du gaaruwaale parce que dem nañ ba ci autorité yi diñ jaxase ak ñoom dem ba ci ministre de la culture bari na bari na mënuma ko. mais yaa ngi wax ne ñooñu rambaaj lañ. non dañ leen rambaajee foofu du question rambaaj. mais loolooy rambaaj non c'est que xam nga diviser pour mieux régner la. parce que ñoom pour ñoom ñun bu ñu jugee ñoom dootuñu am dara. loolu mooy rambaaj. <laughs> ku dem si ministre di la boole. non di wax di yàq. di yàq di boole sax. xam nga loolu nu mu tudd. Ah. rambaaj si wolof. xam nga nit bu amee idée. léegi na yow boo jiiñee gaañi tey ñi ngànk théâtre fii nga ni ay rambaaj lañ. non waxuma ñi ñànk ngànk théâtre am na ci Hmm. waaw haut oh, et dama koy am na ci ñoo xamante ni man doyuñu ma référence. comme kan parce que non bari na. xam nga la moo jox exemple ma nekk fii di lim ay tur parce que dafa am lu muy indi mais bari na Tunkara bu ma la waxee di nga xam dinga nga comprendre mooy ñoom ñi toog di seetaan xam nañ bu baax li may wax. am na ci nag ay ñoo xam ne ay liggéeykat la ñoo xam ni ñu ngi jàpp ci pro di promouvoir le théâtre sénégal tan yow tan tan yow yow ñaata kilo ngay peese. man non man nag indiwuma balance de. musoo peese wu. non wax mus naa peese wu yàgg na. mais dama j'ai perdu j'ai perdu ñaata fàtte naa dooy dem si euh, docteur mu saytu sa wérgu yaram. non mais <laughs> ci santé <laughs> maa ngi théâtre nga dugal ma ci santé quoi. mais tey loolu dafa am solo tan xam nga yow tey yow dafa am loo loo représenté. waaw ah. Mhm. est-ce que tey mus nga dem si docteur mu wax la si wàllum euh, yaram. li muy def si am naa médecin boo mm. xamante ni moom may suivre. kañ nga xam mu ngi suivre actuellement yàggul. koo xam ne mais boo fa demee xanaa dina jël sa poids. non non bañ jël poids du chaque jour ngay dem ñu jël sa poids. Ah, ah, yow parce que sama régime lay topp. waaw mais sa régime ba kuy topp régime day jël poids. <laughs> tan yaa ngi sàcc film bi. <laughs> non poids moom non léegi moom jarul ñu koy. man ma wax sa poids man mun naa am toog nii ma njort sa poids. <laughs> yow yow su ma la xoolee ni tan mhm. normalement. Mhm. yaa ngi war a def cent huit kilos. cent huit kilos ah Tunkara yow xeeb nga ma de. dafa tuuti dafa tuuti. 108 <laughs> tuuti donc tu gara rek yokkal. mais daal en tout ma yokk si 30 bàyyi ma yokk si 30 <laughs> <laughs> lu ñuy publier quoi xam nga moom poids. loolu bëri na waaw waaw jox ñu message yow après yow nga ñëw tam jox ñu sama sëñ message la mm-hmm. bi daal premièrement. Hmm, corps bi dafa am problème. parce que statut bi yow dégg nga coow Kaolack bi temps yi. moom ñëpp xam nañ ko d' accord nañ si. mais même ministre bi moom ministre bi d' accord na ni dafa am ay problème statut bi mhm. statut corps bi. mënuñ à chaque fois ñu ciy def ay retouches te du génn mook. dafa dafa gendarme ñu leen jiite de boo bëri. yooyu yëpp maa ngi ciy ñëw c' est frustrant affaire boobu et pourtant. les inspecteurs ah, la ah bi laaj naa ko ministre ah. keroog dama ko ko laaj. waaw ah. mais monsieur le ministre léegi kooru garde pénitentiaire kañ la ñuy gérer ñoom seen bopp seen koor lu dul gendarme ñëw. mais parce que loolu lañ def ci statut bi il faut que loolu dañ ci statut bi ba pare. mais léegi nekk nañ hiérarchie ah mën nañ ko gérer. mais mais il faut que loolu nag dañ ci statut bi l' administration pénitentiaire ne peut être dirigée que par un colonel de gendarmerie bu njëkk dañ ci defoon ou un commissaire de police divisionnaire moo taxoon nga gis sàmm si nekkoon fi. Mhm. mais il faut que affaire boobu itam jiite nañ jaar nañ fi kenn Cheikh Tidiane Diallo. c'est le seul waaw loolu la dëgg la moom moo fi jaar. loolu rek loolu la mais même le corps de surveillants la hmm. li ñuy réclamer seeni droit nañ leen ko jox. statut boo xam du génn mukk au moment où on valorise les autres corps fii dañ leen di gën a suufeel man moo tax des fois je dis que c'est le parent pauvre du ministère de la justice. ak hmm. l'administration pénitentiaire. est-ce que ministre de la justice ngeen gisee. kooka la man. Ah. man du ma gis ak benn ministre. man man man léegi laa yow sa message parce que li nga wax dafa am solo pour man. message mën na yem si nii. statut corps bi. waaw moom lañ war a xoolaat. waaw ba pare nag suñu kaso yi nag moom. kaso yi moom dañoo dépassé. complètement parce que kaso yi ku am sa laadum sa xar boo fonk doo ko bëgg dugal rëbës gi. doo ko bëgg dugal kaso cees doo ko bëgg dugal kaso Bambey. doo ko bëgg a dugal kaso Vélingara. bu kal bu kaso Kolda moom man tey Bambey laa jaar. Hmm. directeur bi dama ko fekk muy def effort effort boo xam ne mënu ko il a sollicité le préfet ñu may ko ay xeer yu xonq yi ñu doon liggéeyee autoroute à péage bi pour mu mën a régler le problème des fosses septiques boo xam ne da doon couler bay dugg ci biir dëkk bi le cas s'était posé à Diourbel en face d'une école. aywa euh, message bi tan bombe lan la. waaw Tunkara sànq danga ma xaw a dagg mais damay wax grand yooyu ma doon wax nii euh, ñoo ñu doon jaxase ak autorité yi am na ci ñoo xam ne vraiment ñu ngi promouvoir le théâtre muy monsieur Leyti Fall bi nga xam ne moom mooy président Arco Pikine banlieue mm, ma koy féliciter parce que fan yi mu ngi ci benn projet ak euh, waa OIF di defal jeune talent yi nga xam ne ay comédien lañ bëgg tey koy xalamal de du xalamal du xalamal man message lan la tan waaw message bi may wax mooy ministre bi euh, mu jàpp jàppale euh, comédiens yi parce que Tunkara actuellement jot na ñu am statut de l'artiste boo xoolee Sénégal. mais loolu da ngeen dem Sodav ngeen lijjanti ko. foofu tamit bu mu taxaw waaw non du Sodav moom droit d'auteur yi la gérer. waaw mais mais statut de l'artiste loolu ministre bi ko mën a ministre bi rek ko parce que loolu. est-ce que bind ngeen benn projet de euh, ko. loolu lu ñuy bind parce que loolu convention la bu àdduna bi dëkk yu bari signé. Sénégal bokkoon na ci mais dañ ko appliqué wul. ba pare président de la république Macky Sall ñu koy wax ne ko ñun soxla nan loolu parce que tey boo demee chambre de métiers. théâtre doonul métier ci Sénégal. Uh-huh. tey boo demee chambre des métiers boo nee man comédien laa dama bëgg carte métier euh, benn carte boo xamante ni pour sama métier la professionnel doo ko am. doo ko am. Uh-huh. beneen lan lay utal ay couturier ay leneen ak leneen. waaw mais waa Sodaaf yooyu da ngeen koy dugg grâce ba waa Sodaaf ñu dugal ko fa mu commencé ko. mais looloo tax fédération bi juddu. Hmm. fédération bi ma lay wax muy FIPU FIPU mu ngi tekki fédération des intervenants pour la pour la pour promouvoir le théâtre non non fédération des intervenants pour pour promouvoir le théâtre. Euh, réer na ma quoi. ah non seet ko seet ko <laughs> mais léegi wuy ma euh, dañuy may prestation bi nga defoon bi nga demee Togo. waaw ah. euh, poésie wu Massamba Gueye boobu may ñu ko ñu déglu. non loolu moom mënu la ko may. mais lu tax. non loolu cachet koy maye. ñaata. fay ma 500000. non mën naa la fay 10 000. <laughs> dix mille moom mun naa <laughs> non non dix mille moom photo photo ak man rek ëpp na dix mille <laughs> sa plateau bi ma toog rek sama transport ëpp na dix mille boo boo eh, xoolal da nga fàtte poésie bi. Ah, da nga ko ma ko mais boo ko boo ko waxee rek dix mille <laughs> non non non loolu moom du ma ko def. Tunkara fàtte nga ko. non loolu do c'est que prestation. waaw ah, bu laal 10 000 prestation c'est pas gratuite. Hmm. Tunkara xam nga. non man gratuit damay fay. non lii du fay lii du fay prestation Tunkara tey man loolu taxul. non lii c'est symbolique. symboliquement waaw mais aussi man. vraiment léegi léegi est-ce que affaire fàtte nga ko wala poésie ba nga defoon fële. Togo fàtte fàtte loolu nekk sama biir bopp. may loolu du ma ko may Tunkara. loolu waaw léegi bu ma ko may téléspectateur yi li ma leen di may. mooy mu ngi ñëw tuuti ci kanam tuuti ndax dinañ gis Tann Bombé ci leneen ak leneen ak leneen. actuellement maa ngi ci benn projet ak Yoro muy horizon 2019 muy pour élection mais mais yaa ngi def man maa ngi def sport. Hmm. boo ma xoolee sax xam ne maa ngi def sport. waaw foog nga gérer poids bi tamit parce que attention poids moom noonu la. poids noonu la dama am xaarandi bu ñuy def léegi balaa ñuy dugal suñu yeneen ñaari gante ci xel ak xol. te loolu ñu ko la Roxay Daba Mbodj moom moo nekk si réalisation bi sunu ñawkat Pape Sy njiit création fi si HLM6 delloo ko njukkal sunu jotaay mujj tey euh, xel ak xol ñu ngi si ànd ak Pape Songe Sarr Pape Songe moo jiite kuréel boobu nga xam ne ñoom dañuy xeex di euh, xar seen tànk tubéy ngir ñi ne woon militaire ñu fexe ba ñooñu ñu am place. si euh, réew mi ànd euh, si tamit ak Ousmane Niang Ousmane moom alxames bu ne day ñëw léegi di ñu defal ay taalif Ousmane di la ziar. Pape Songe yow di la ziar. maa ngi lay nuyu Pape Songe yow militaire nga woon. waaw militaire laa woon. après nga summi. waaw après ma bon summi wu ma ma résilier sama contrat. lu def naa sama dure légale bi mu jeexee après par la suite c'est un choix. waaw nga nga ma dem seeti la ma duma seeti leneen. Ah, ñaata ñaari at nga fa def. waaw def naa fa deux ans six mois. deux ans six mois. diggante Bango ak fan. Euh, xam nga ñun nag suñu contingent bi mu nekk euh, d' abord ma nuyu sax. Euh, téléspectateurs yi ñuy seetaan nuyu waa 2STV et puis yow sant la gërëm la également. di rafetlu liggéey bi voilà. Euh, donc man maa ngi fi teewal benn amicale bu ñuy wax ARSAM donc amicale pour la réinsertion sociale des anciens militaires. Mmh. parce que dañ xool militaires yi souvent lu ñuy jàng mooy arme. après seen durée légale bu jeexee wala après seen retraite parce que 40 ans boo nekkee homme durant aussitôt da ngay euh, retraité. Mhm. donc retraité à l'âge Euh, fleur de l'âge donc muy 40 ans ci la ñu am idée boobu nag ñu créer ko am yenn activité sociale yu ñuy def bon xam nga ñun ñu ngi enrôlé woon en 1998 mm -hmm. donc ñu xool un peu tard nag mais li ñuy wax mieux vaut tard que jamais bi ñu demee ba 3 mars 98 ci la ñu am vingt ans de service ñu gis suñu yenn classes yi commencé di décrocher di retraité gis xale bu ndaw di retraité ñu ne pourquoi pas ñu taxawal benn affaire. 3 mars 2018. 3 mars 2018 voilà. ci hmm. lañ lancé waat. léegi ay euh, euh, tey li nga bëgg mu leer si bopp ñëpp lan la. voilà li ma bëgg mu leer ci bopp nit ñi d'abord mooy di préciser que ne ñëwuñ pour ñaxtu wala leneen parce que armée daf ñu jàngal servir dans la loyauté et dans l'abnégation ci loolu la ñuy continuer retraité nañ mais n'empêche wala am na ñoo xamante ne ñu ngi ne ci jafe-jafe duñ nekk ci tëli bi di takk ay brassard rouge wala leneen ñun suñ biir li ñuy wax ndimbal na ca fekk loxol borom mooy ñun ñu sóobu ci ba pare ñu demande le bonnes volontés wala ñeneen ñu ci mën a jàpp ñun suñ biir d'abord ñu jàpp ci avant ñuy woo d'accord loolu leer na nañu usman yow tey euh, lan nga ñu indil. tey euh, ñu ngi jëm ci waxtaane citoyen. citoyen doomi réew. doomi réew mi waaw. aywa loolu loo si tëgg tey. dafa am solo ndax xam nga dafa am fu ñu jëm réew mi mi ngi commencé yëngu tuuti tuuti. tey ay ñu ngi lay déglu. taalif nag jëm ñëw ci ngir war a teg kenn ku ci nekk fa nga war a nekk ngir jàmm mën a am. simila citoyen foo juddoo noo juddoo mu njëkk doon li ngay tuddoo. fa nga juddoo réew mu mu doon na muy wuyoo doom nga fay doon door di ko wuyoo lu waay di wuyoo da koy nuroo roy suy taxa nuroo doom di dëggal ndono li gën a wóor li ngay roy door di ko nuru doon ca doom am cay ndono ku war a miraas laa ëpp ci sa bopp sam ay cër sam ci sam xel naan sam yuur lu ñëpp bokk séddoo ko të bëggub cër bu mu tax nga di ko gor ak a ruur doonal gor liñ fi ji te yéene koo góob ñi fiy gor lañ koy dénk ñu koy sàmm doonal gor mooy taxa doon ab sàmm ku fiy sàmm pour la ardo mi fiy sàmm yendu àll war a màngi man ak mànga ku ci sàmmut soxla soow nañ ko sóor mat naa sàmm citoyen lu lay xaar gëm sa réew moo lay xaar yiir sa réew moo lay xaar ji sa réew moo lay xaar yàlla yàlla bay sa tool ku ami tool te amoo jiw ruujil te jiwi tawub yàlla jiitub juddu li nga juddu fekk muy dund tey dee ba ko muy dund fexe caa ji lu jar a juddu te fexe jëf lu jar juddu hmm? jëf lu jub te jaadu moo jar a juddu yara dal yàlla bu mu dal doomi ndumbelaan bari doom yara dal la ñuy jiiñ doomi ndumbelaan du man dong bu ko ñëpp doomoo bokkuma ci néew fi ndono hmm? ku fi judd am fi njëriñ xam sa njëriñ te jariñ ke jariñ nga tu koo jàmmal li yey ki amul njariñ am fi njariñ moo ma jaral fanaan cib sën sax fa sikkim di fa sëriñ citoyen bul di salteel ak a sosal saxol sofale ak a setal sa deru réew ndawul buur bul di dóor ak a ruur saxol yiir sa doomi réew ñoo la solol mbubum buur doomi réew tànnil njiit lu njiit cërub njiit du luy jaay amul njëg ku xamul nag ni amoo njëg ba waye di tax nga am fi njëg luñ la jaayee ndéem da nga ca jot na nga ca muy sag njot njiitum réew na ko jëmmal fab ko jàmmal jox ko cëram li nga judd fekk muy dund tey dee ba ko muy dund boo ca amee lenn ndono nu mu tudd nu mooy doylu doo fi doon ku ñuy roylu est-ce que euh, <laughs> Ousmane Niang vraiment delloo ko njukkal parce que euh, Ousmane li ngay def nii <coughs> euh, man dama si gis ñaar. benn mooy koo xam ni bëgg na askanam gën a suqaliku. Mm-hmm. ñaareel bi nag mooy liggéey bi ñu siy def. parce que li nga def ni liggéey la da ngay toog. tëgg ko bind ko ba pare <laughs> naan ko. mu ne sa biir xel nga ñëw toog sotti ko xam nga loolu liggéey la boo xam ne. Euh, vraiment euh, di la si delloo njukkal yàlla suñu borom barkeel. Euh, nangu te barkeel. aywa Pape Song message bi lan la. voilà message bi mooy d'abord ñu plan d'action bi ñuy déroulé depuis le trois mars donc ñu jéem ko vulgariser ba ñeneen ñi dégg ko. Mhm. parce que comme li ma la waxoon rek ñun ci social la ñuy yëngu. Euh, am na suñ benn classe yi classe yoo xamante ñu ngi ne ci jafe-jafe prison jëlal nañ leen avocat loolu amicale bi moo ko jël à ses propres ressources également ñu dem ba xam ne arbre Noël dina am pour RTS dina am pour toutes les tous les agents de l'État mais duñ ko gis ci militaire yi wala ci seen veuve yi da nga gis koo xamante ne jëkkëram mu ngi nekkoon ci armée bi daanu au champ d'honneur kooku jabaram tey mu ngi fóot wala leneen affaire boobu mu nekk benn cri de cœur ci ñun moo tax le 25 décembre bi ñu war a tëgg benn soirée d'abord soirée bi programme bi euh, dinañ jox ay cadeaux de Noël aux aux orphelins ensuite euh, ñu dimbale également les veuves ba nga xamante ne dinañ mën a fête Noël bi donc euh, fête boobu également ñu ngi ko def sous le patronage de du général Babacar Gueye ki nga xam ne Babacar Gueye suñu histoire dafa lié wala non Youssou Ndour tëgg ah non Youssou Ndour les anciens enfants de troupe. anciens enfants de troupe ñoom lay tëggal yéen kan mooy yéen euh, seen soirée koy tëgg. Euh, suñ soirée nag soirée discothèque lay ne parce que début bi amoon nañ ñu jëloon ay artistes mais par la suite on avait un problème de cachet parce que comme li ma la waxoon rek moyens yu bëriwul. doole euh, yemul doole yemul effectivement doole yemul donc mais li ngeen def dafa am solo lool parce que xam nga armée moom ku si ne. kenn mënu laa fay. kenn mënu laa fay parce que taxaw yow. pare pour joxe sa bakkan pour ñeneen ñi am kaaraange loolu tey boo ko doon natt ñaata la kenn xam kenn mënul natt loolu léegi nag kooku tey su demee ba nag loolu am joxe na bakkanam ngeen ñun ñu am kaaraange mais léegi ñun kooku amal nañ ko njukkal lu mu néew ñun suñu réew yi dëgg-dëgg wane temps yi dégg nga ñu wax euh, ñu demoon 91 jàmbaare yooyu seen xaalis mais waa loolu garaaw na de trop maintenant ñun nag comme liñ ñu yare mënuñ génn ci mbedd mi mais moo tax ñu créé suñu amical te yooyu yëpp xamoon ngeen ko yéen xam nañ ko ñu ngi koy dund maintenant on nous a appris de souffrir en silence. mënuñ hmm. génn di wax mais on sait beaucoup de choses. Hmm? kon xaalis yooyu ndax saay na nii mër mër. mbër eh, mënuñ topp. ay nit jël ko noonu. ay nit jël ko noonu. te yéen xam ngeen ñi ko jël. non 91 moom fekkul ma fay je me rappelle à peine parce que 91. moom ma fekk à l'élémentaire oui mais après mu ngeen xam affaire la demee. voilà donc. Euh, bon pour ce qui me concerne mooy euh, amical bi am na ay injustice <laughs> waaw am na ay injustice yoo xamante ne te xam nga militaire c'est la grande miette mënuñ nekk di wax doo wax voilà doo nekk di wax non militaire xam nga affaire yu sensible vraiment euh, delloo la mais ala kulli xaal moom a delloo njukkal parce que ki nga xam ni pare na pour joxe dundam pour yow nga am kaaraange kooku yow amuloo loo ko mën a fayee te Cheikh Anta Diop loolu doon wax mu ne réew ñetti soxla la am ñetti aajo bi njëkk mu ne kaaraange mm-hmm. ñaareel bi nga moom sa bopp si wàllu politique moom beneen bi nga moom sa bopp si wàllu koom ñetti yooyu moom mooy réew bi si jiitu nag mooy kaaraange parce que kaaraange bu amul moom moom munoo am koom munoo doxal réew munoo jàng munoo faju munoo dara parce que kaaraange amut euh, vraiment mbooleemu militaire yëpp ñi nga xam ni ñu ngi sous les drapeaux bëggoon naa profiter bon ma lancer benn appel également parce que servir le Sénégal moom lañ ci yaakaar parce que am na suñ benn classe je ne citerai pas son nom si suñ benn attaque dont j'étais présent ci la amoon benn ay éclat d'obus. Mhm. fi mu ne nii daf koy def ay crise d'épilepsie fan la fan la woon Casamance. Casamance waaw précisément dans l' attaque de Sarewali. Mhm. tey jii kooku mu jël ci éclat de bi on l'a libéré parce que am na séquelles yoo xam ne. Ah, du immédiatement après ans la soog a ñëw. mu ñafe am chauffeur nekk chauffeur am permis mais muy daanu crise mënatul def dara muy jël ay comprimé comprimé yaram bi. donc di demander un appel une bonne volonté ou bien même servir le Sénégal kooku mu jàppale ñu ci. parce que loolu moo nekk loo xam ne parce ñun mënuñ ci dara donc opération neurologie donc boo vraiment ku ñu ci mën a jàppale donc jëlal ñu kooku en charge kooku daal mooy bi ñu dese PTSD euh, post traumatic stress disorder léeg-léeg ñenn ñi dañuy am stress boo xam ne euh, ginnaaw bi bi jeexi jaaxa bi amee la mhm. ñenn ñi carrément nag ay feebaru euh, xel walla mhm. feebaru yaram dafay juddu ginnaaw bi nga xamee ni loolu am na mais vraiment militaire moom kenn militaire alkaati gendarme euh, douanier képp kuy sol tenue kooku moom ñun amuñu fayam seen liggéey euh, liggéey gënu ko noble parce que ñoom dañu pare pour joxe seen bakkan pour ñun alors Ousmane lan ngay jeexale waaw li ñu jeexale mooy sant ak ngërëm rek di la sant di la gërëm ci jàppandal bi ñu defal ak eh, di nuyu tamit ñi nga xam ne comme bi nga koy wax léegi ah taalif moo demee noonu taalif a ngi noonu fayul mi ngi fi deewul mi ngi dund lu ñu tënk la nag boo gisee texte bi xaw na guddi tuuti mais yu ñu tënk la yoo xam ni bu ko askan wi teyloo firilu ko ñu dem ci ñu ko dégg ñu firil leen ko dina xam ni euh, joxañ nañ ci ay ay ñu baree bare ñoo xam ni bëgg nañ ñu ànd dal ak tey ci li jëm si ci réew mi bi ci mooy di sant di gërëm ñi nga xam tamit comme ni nga ko waxee ñoo ñuy topp di ñuy saytu parce que lii tamit structure la ñuy def euh, nooree ni euh, nooree ni taalif structure la boo xam ni ku ci nekk ak li du benn jëmm rek am na ñu bari nekk ci ginnaaw boo demee bopp rue 1 ba rue 9 ñu ngi nuyu ñëpp boo demee fu ci mel ni kooki mbaar ma alkaan ngay mi ngi fa ku ci mel ni njaga da ciy jàpp ku ci mel ni euh, euh, ku ci mel ni njóogu njaay ñoom ñëpp ñu ngi fa ak suñu yeneen yaay bi may ñëw rek yóbbante yu baree bare mi ngi ñi ngi ma koy jox jëmale ko ci yow ci hmm. sant ak gërëm ak ñoo xam tamit ñi ngi suivre émission bi di recette am na ci benn maire sax mi ngi may tooñ naan ma man de Tunkara laa fas yéenee wooteel ci élection yi ma ne ko ah yii de bokkul waaw mu ne ma déet man ci passé sax moom laa sànni loolu ma la topp lu siiw baax a baax bëgg naa bu jot amee tamit insha allah nga seet ko ndax lay ñu ngi loolu moom euh, jàmm ak rek moom moo si nekk aywa euh, passons nga lan ngay jeexale voilà li may jeexale mooy d'abord ma sant ak gërëm sama classe yi nga xamante ne ñoom ñoo nangu ma jiite leen euh, groupe boo xam ne fort de deux cent soixante quatorze personnes. Mmh. il des sous-officiers supérieurs des des officiers et des sous-off ñu nangu man civil ma jiite leen peut-être am na nekk bu ma nekkoon ak ñoom peut-être ñoom loolu ñoo ko jugé donc di rafetlu confiance boobu mu am ci man beneen bi également mu am benn colonel abu Diouf. colonel intendant bu nekk Thiès kooku également vraiment moo ñuy coaché. Hmm. donc liñ naan feccu liir bu neexee rek am na ku jàpp ci mbagg yi. moo tax vraiment du ñu am dérive. beneen bi may terminer nag mooy sunu coup de cœur fa ma dëkk muy Gàmbul Congu national numéro un dafa jaar doo daan jooy nañ ko guddi jooy nañ ko bëccëg léegi ñu doon ñaan ñu defal ñu doo daan parce que à l'image des autres villes day am accident mortel ba ñu rey nit ñu soog a def doo daan. ñaanuñ ko yàlla on a tout fait te alors fa la Diène Farba Sarr dëkk fa la professeur Songe Dieng fa la maître Sarr avocat dëkk donc yaa que des cadres donc ñu ngi ñaan ñi nga xamante ne ñoo mën a def ñu def euh, prévenir vaut mieux que guérir. Euh, loolu moom dañ si ànd te loolu devise la tamit si armée armée moom euh, dangay ngay fexe ba jël say matukaay maanaam fagaru moom moo gën faju Euh, sunu ay euh, gan yi fi dikk yëpp tey amuñu seen euh, fay sunu ay technicien autour de Roxaya Daba Mbodj tey ci réalisation bi sunu ay sunu ñawkat muy Papsi fii ci HLM Nimzat waa Njit Création sunu téléspectateurs yi nekk ci àdduna bi yëpp waa Paris ñoom leen ne saane ñooñu ñëpp di seetaan du ñu def lu dul ñaan leen suñu borom mu dafa leen jàmm xéewal ndimbal ak yërmande te di fàttali loolu nag li koy joxe mooy xam-xam di ko jëfee ak jikko ju baax di daje ñëpp. sama ñawkat bi nee na nga jox ko sa mesure mu ñawal la. ah ma ah, Samba Gueye la mu nekk donc grand maître tailleur bu nekk Diourbel en face Sonatel. macha allah kooku sama mbokku Mbaw bool bool bool macha allah. nee na nga jox ma sa mesure ma yóbbaaleel ko. macha allah euh, moom moomu ak mboolem ñi am yéene xam nga léeg-léeg dama yéene léeg-léeg tey euh, am na koo xam ne moom yéene gi mu am si yow dëgg-dëgg mënoo ko koo euh, fay ñooñu ñëpp di leen ñaanal suñu borom mu defal leen jàmm xéewal ndimbal ak yémane moom Samba foofu ca euh, Touba ak ñoom Touba Gajaga ñoom sëñ Fallou Niang fu la ca marché ocas suñu mbokku taalibe yooyu yëpp di leen ñaanal suñu borom mu defal leen jàmm xéewal ndimal ak yërmande di daje ñëpp altine bu soobee yàlla wasalaam